alhamdulilahi waxda walsalaatu walsalaamu ala man la nabiya baxda muhammadin wa alihi wa saxbihi wa man ihtada bi hadihi ila yawm iddin amma baad mbokki jullit yi mag dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne yàlla nga ko defal liy sedd xolam ci biir julli ni xolam di sedd ci biir julli du ko sedd feneen julli mooy seral xolu ñi nga xam ne ñu bëgg suñu boroom lañ ngir li nekk ci julli ci deeyaaleeg ki nga xam ne xol du mën a sedd ab xol du mën a dal bakkan itam du mën a tekkaaral lu dul dafa dellu ci moom suñu boroom tabaraka wa taala looloo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan wax bilaal taxawalal julli ndax du noppalu ci julli maanaam ci julli ci la daan yëg am noflaay wuteeg ñi nga xam ne moom dañuy jàppe julli lu diis ba dañ ca yàkkamtee génn wa innaha la kabiratun illa ala alxaasiin imaam ibnul qayim rahimahullah dafay wax ne julli gi nga xam ne nag mooy saral xol xol di ci mën a noppaloo di ci mën a féex mooy julli goo xam ne day dajale juróom benni taxawaay nee na taxawaay bu njëkk bi ci julli mooy sellal te mooy lala la yóbbee ca julli ga la la ca dugal du dara lu may xemmem suñu borom tabaraka wa ak sopp ko ak sàkku ngërëmam ak sàkku lu la koy tax a jege ak topp ndigalam benn cëru bakkan puusu la dugalu la ci julli waaye day dikk ca julli ga ngir sàkku ngërëmul borom bi tabaraka wa taala ngir sopp suñu borom ngir ragal mbugalam ngir yaakaar njëggalam akub yoolam loolu mooy taxawaay bu njëkk bi nit kii li koy dugal ci julli bu mu doon lenn lu dul rek mun ngërëmul borom bi tabaraka wa ko def bu ko def ngir ne bëgg a wan nit ñi mu ca wut bi tabaraka ñaareelu taxawaay ba mooy taxawaayu dëggu nag te mooy ab xolam mu génn ci lépp loo xam ne du suñu borom tabaraka wa def kam kattanam ci jublu yàlla ab xolam mu dajale ko ci julli gi léppam soxlaam sépp nekk julli mu amal julli ga ci anam ga gën a rafet ak na mu gën a mate ci biir ak ci biti ndax julli daa am biti am biir bitt bi mooy li ñuy gis ci ay jëf ak li ñuy dégg ci wax booy julli waaye baatin ba nag muy biir ga nag mooy xol ba mooy xusoo ba ragal yàlla ga ak yëg yàlla ga ca xol ba te foofa nag la julli ga dëgg-dëgg nekk da gis nañ suñ boroom ne qad aflaha al muminuun alladina hum fi salaatihim xaasiuun xaasiuun boobu moo andi aflaha bi ñii texe mooy jullikat yi nga xam ne bu ñuy julli xol baa ngay julli xol ba dara nekku ca lu dul julli gi waaye gis nañ fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun mooy ña nga xam ne cër ya war a def lépp def nañ ko lam war a jàng jàng ko melokaanu bitim lépp mat na waaye xol ba moo ca àndut kooku yàlla mbugal la ko dig kon ni ñuy rafetale bitib julli gi ba boo ci jamu jee da koy defaraat noonu lañu war a rafet rafetee itam biir julli gi nga xam ne nag moom ca la lépp nekk war naa ànd ak fuglu mooy bàyyi xel ne suñu borom tabaraka wa taala nga jàkkaar lool sab xol lépp lu dul yàlla nga génne ko ci sa lépp jublu borom bi tabaraka wa bañ a geestu bañ a am soxla ci leneen saa bu sam xel bëggee dem nga delloo si waat ko te loolu la la cay dimbali bu fekkee mënoo téye sam xel dangay jàpp ne sa bàmmeel nga tiim wala nga jàpp ne bu ñu la tëralee di la jullee sa taxawaay boobu mooy jullee gi yaa tëdd ci kanam noonu ñu di la jullee su ko defee sam xel boo ko indee foofu du tala dema ci feneen te loolu luy ñëw la loo xam ne yow bu boobaa ni koy mën a xamee rek mooy jamono bi ngay dund nga koy bàyyi xel nii boo ne allahu akbar taxawal di julli na xam ne bis dana ñëw ay nit ne allahu akbar yoo xam ne yaa tëdd ci seen kanam bu keroog taxawaayu ñetteel bi mooy taxawaayu topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak roy ko ci biir julli gi nga xër lool ci roy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci jullee nam daan jullee du mooyu sori li nit ñi sos ci julli moo xam luñ ca yokk la wala luñ ca wàññi la nga fexe mucc ca loola fexe ba rafetal tontu bu ëllëgee mboolem lu la yàlla digal rek ëllëg danañ la ci laaj maasa ajabtumul mursalin lu ngeen tontu woon yonent yi maanaam yonent bi bi mu jàngalee julli yow noo noo ko tontoo noo jullee sa julli mooy sa tontu ba mu jàngalee koor noo wooree woon mooy sa lépp looy def rek day mel ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngay tontu ne ko lii nga wax day man nii laa ko déggee loolu yàlla dana ko laaj maasa ajabtumul mursalin lu ngeen tontu woon yonent yi loolu kenn ku ne na ko bàyyi xel bu baax bu fekkee la nga wax andi bokk nag la yonent ba andi woon ah loola bu boobaa borom bi tabaraka wa taala du ca digg ak pay ndax nee na ku wuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam fal yaxzari allazina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim na moytu bu baax ñi nga xam ne dañuy wuuteeg ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim jàngale fitna dal leen mbugal itam dal leen bu ëllëgee tolluwaayu ñenteel bi mooy masxadul ihsaan mooy nag taxawaayu rafetal te rafetal gi mooy nga yëg muraaxaba yëg ne suñu borom tabaraka wa taala yaa ngi taxaw ci kanamam moom boo ko gisul it mi ngi lay gis te kenn ku ne xam ne boo doon liggéey dara kilifa gala koy liggéeyloo doon kilifa goo fonk mu ñëw tegu seesam toog noo man ci rafetal ko ak matal ko danga ko def kon nag borom bi tabaraka ko taala mi nga xam ne moom mooy borom ñëpp te moom rek moo amuk pay moom rek moo mën a mbugal boo taxawee ne ci kanamam nga taxaw lii ngay def moo la ko def loo nga bàyyi xel loolu da nga ca góorgóorlu sa kem kattan ci def ko nu mu gën a mate loolu nag la cay dimbali nit ki mooy ngëm yàlla gu mat sëkk ak itam turi suñu borom yi tabaraka wa taala ak melokaanam yi nga di ko teewlu ba bàyyi ne inna allaha samia nga jàpp ne njàng mii ngay jàng ci biir julli gi yaa ngi koy dégg yàlla nga koy dégg nga ne basir xam ne fii nga taxaw di julli yàlla ngi lay gis yooyu soo ko bàyyee xel rek boobaa da ngay daal di mën a rafetal tolluwaay boobu tolluwaayu rafetal boobu moom mooy cosaanu mbooleem jëfi xol yi xam ngeen ne jëf day ñaar li xol yi jëf ak li cër yi jëf te li xol yi jëf nag moo téye li nga xam ne moom la cër yi jëf day mel na garab rek garab li jëm kaw waaye am na lu jëm biir suuf li jëm biir suuf nag moo téye li jëm kaw li ci biir suuf muy reen yi yi ngay seen ci kaw muy xob yeeg naataay bi lépp mi ngi aju ci loolu ci biir suuf nu mu màndee bàq loolu mooy tax xob yi man a dëll mën a naat meññet ma itam mën a baax doomu aadama itam noonu la mel li jëm suuf ne ci biir xolam loolu mooy sellal geeg pas-pas bi moo téye li ci biti loo gis doomu aadama di ko def ci biti ci ay ñaawteef xamal ne la ko sabab maga ca biir xol ba loo gis muy def ci ak rafetal xamal ne la ko sabab lépp maga dellu ca biir xol ba moo taxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne woon am na ci doomu aadama cër boo xam ne su baaxee rek lépp baax waaye su yàqoo lépp yàqu ne loola mooy xol masadul ihsaan boobu mooy waral kersa goo xam ne jaam bi da koy am digganteem ak boroomam seet la lu ko yàlla defal ci xéewal ak li mu ko sant ci ay jaamu yàlla ni mu néewee xéewal gi nga xam ne du dagg benn yoon jaamu yàlla gi nag boo ko defee da nga ab diir boo jullee toogaat ab diir doo ko julli su ko defee loolu moo koy yóbbee màggal suñu boroom moo koy yóbbee sopp ko moo koy yóbbee wàkkiirlu ci moom moo koy yóbbee di toroxlu moo koy yóbbee mu dagg lépp loo xam ne lu koy jax-jaxee la lépp luy waxtaan ak bakkanam la fu xelam bëgg a yóbbu mu xëccoog moom ba delloo si waat ko moo tax suñu borom tabaraka wa taala di wax ne doomu adama yi day day mel ne dañu lay ñax dugg giñ dugg ci lislaam maanaam dugg giñ dugg ci lislaam mel ne yàlla lañ ko defal mel ne yàlla kat war na noonu sant ndax nun noo ngi nangoo julli noo ngi nangoo woor te ñu baree baree bari nanguwuñ ko kon daal mel ne yàlla moom moo nu ameel àq moo tax mu ne ko yamunnuuna alayka an aslamu qul laa tamunnu alayya islaamakum balillaahu yamunnu alaykum an hadaakum lil iman in kuntum sadiqin waaye bu ñax amee yàlla moo leen war a ñax yàlla mi nga xam ne moo leen baaxe jubal leen ngeen gëm yàlla dugg ci biir lislaam kooku moo leen war ne budul woon ak man waaye nit ñi waruñu naan yàlla bu woon ak noonu doo am ku la jaamu comme ni ko dégg ñenn ñi waxee naan yàlla bu xeebee liñ koy jaamu te yàlla lim am ci mbindeef yi yoo xam duñ ko mooy benn yoon malaayika la yaxsuuna allaha ma amarahum te wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu soldat malaayika yooyu kenn xamul lu ñu toll te ñoom duñu mooy yàlla tarfata ayn kon doom aadama yii su fekkente ne jàpp nañ ne ñoom la yàlla am ci ñu koy jaam te yàlla même moom bu ko kenn jaamul loolu dul wàññi dara ci nguuram bu ko ñëpp dee jaamu itam du dolli dara ci nguuram kon lu waay def ci sa bopp rek lay del siwaat man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha ku jëf lu baax yaay dajeeg pay ga ku ñaaw itam ñaawal itam sa bopp lay del si wa ma rabbuka bi dallamin lil abid loolu lool jàmbi da ko war a bàyyi xel bu baax suñu borom tabaraka wa taala ku nekk jullit moo la baaxee dimbali la nga nekk ab jullit ku mën a julli itam moo la baaxee dimbali la nga mën a julli moo tax ibrahim alxalil bokkoon ci ay ñaanam mu naan rabbana wajalna muslimayni laka yàlla yàlla na nga ma def maag sama doom ji ismail ñu nekk ay jullit yoo xam dañoo jébbal seen bopp lépp jëme ko ci yow wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak sunu sunuy sët sunu njaboot yàlla nga leen def ñoo xam ne ñëpp dañuy nekk ay jullit doon ñaan itam rabbi ij'alni muqima salaa gis nga nim ñaanee yàlla may ko mu mën a julli rabbi ij'alni muqima salaa wa min nga ma def ma mën a taxawal julli maag sama njaboot ndeke kon julli du ngóora yàlla moo la ko baaxee jamono bu nekk kon nit ki da cee war di sant yalla war di ko gën a rafetal moo tax xéewal suñu borom tabaraka wa taala ci def gi def jaam bi mu taxaw di ko topp bokk na ci xéewal yi gën a rëy a yàlla may gim la may nga nangoo gëm yàlla nangoo jaamu yàlla moo ëpp ci xéewal yi ñu bari dañuy defe ne xéewal moom alal la rek waaye man a jaamu yàlla joxe ak julli ba mu yegg rek xéewal bu rëy rëy rëy la ndax bari na sa moroomi jaam yoo xam ne defuñu ko borom bi ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xéewal rek ci yàlla bàyyi ko même gëm yàlla gi nga gëm borom bi daf ne walakin allaha habbaba ilaykum al iman yàlla moo leen bëggaloo ngëm wa zayyanahu fi qulubikum moo ko rafetal ci seeni xol wa karraha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan moo leen bañ loo kéefar maanaam ñàkk gi nga ñàkkaat doon yéefar bul jàpp ne mu rëy wala sa ngóora moo tax doonoo yéefar wala sa njàmbaar moo tax nga doon julit déedéet habbaba ilaykum al iman habbaba moo la soppaloo ngëm karraha ilaykum al kufra moo la bañ loo kéefar wal fusuqa wal isyan ulaayika humu rasidun moo tax kon yooyu yëpp jaam bi da cee war a delloo borom bi tabaraka wa taala xam ne moom lu nekk ci moom rek yàlla moo ko ci def taxawaayu juróom-benneel bi mooy nag taxawaayu gàttañlu nga yëg ne julli gi nag loo góorgóorlu lu loo farlu farlu farlu mëtul na mu war a mate am na lu ca manqué su ko defee nag nga bañ saa naw sa bopp yëg ne ak gàttañlu am na ci lool moo tax ku sëlmal julli li ngay jëkk a wax mooy astaghfirullah xam nga ko jaamu yàlla ba sëlmal la xel nangu woon mooy alhamdulillah gannaaw maa julli waaye boo sëlmalee li ngay jëkk wax mooy astaghfirullah mooy lii ñu ma santoon doon ma ko def loo genn wàll gi defuma ko defuma ko li ma ko war a defee kon nag li ci manqué maa ngi ñaan yàlla jéggal ma ko moo tax boo sëlmal rek astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bala ngaa wax lenn waxal loolu te astaghfirullah moom mu reconnaître sa lu la ak sa manqué looloo tax ci la ñuy déggee wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ji mu waxoon koo dugal aljanna nee na ku jàpp ne jëf nga jëfa jëfa jëf ba xam ne yow léegi sab sek nga yor rek da ngay dem daal di tàllal ko rek dugg aljanna ndax yow jëf nga loo xam ne aljanna rek nga yeyoo loolu ku ko jàpp da ngaa waru yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko waa ba ci sax yow yonente bi mënoo jëf loola dugal aljanna mu ne déedéet xanaa yàlla tabbal ma ci biir yéen ma dem rek ak mu mbaax moo tax mu ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi daalika fal yafraxu huwa xayrun mimma yajmaun kuy bég wala nga yaakaar bégal ci ngëneelul yàlla ak yërmandeem qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi waaye kenn wër naw say jëf waxuma laa nag jëfi keneen war na li ñuy bàkkee nit léeg-léeg ñu jóge fi ñu naan moom kay ma nga biir aljanna li mu def nangam nangam fekk na kooka ñaanaloon ko moo gën di ko naw naw yooyu nga di ko naw ñaanal ko mooy li nga xam ne moom la gën a aajowoo yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax julli gi ñuy julli ci moom dañ koy ñaanal Anas ibn Malik dafa wax ne jaam bi yowmal xiyaam yàlla dana ko génneel ñetti registre maanaam ñetti carnet carnet boo xam ne yu baaxam lañ ci bind carnet boo xam ne ay ñaawteefam lañ ci bind carnet boo xam ne xéewal yi ko yàlla defaloon yépp moom lañ ci bind ñett yooyu lañ ko génneel suñu boroom ne xéewal yi jël leen seen wàll ci yu baaxam yi mu doon def ndax lu baax looy def lu ne dafa fekk xéewal a tax nga mën koo def li tax nga mën a julli da ngaa wér li tax nga mën a julli da ngaa am loo lekk li tax nga mën a julli da ngaa am loo naan boo maroon ba mënoo jóg wala nga xiif ba mënoo taxaw wala nga feebar ba mënoo jóg doo julli kon xéewalug wér gi la yàlla defal xéewalug jàmm gi la yàlla defal xéewal googu sa julli gi am na ci wàll suñ borom ne xéewal gi jël leen seen wàll ci yu baaxam yii nee na xéewal ga gën a néew a néew a néew mooy jóg rek jeexal xéewal yëpp tuyaaba yëpp yu baax yi nga defoon yëpp benn xéewal ay jóg rek jeexal xéewalu bët rek buñ la woon na fayu ci yow li mu war a am ci yow bët nga gis ñu ñàkk bët buñ la woon fay leen ay milliards te gis buñ ko amee dañ ko fay xéewal googu daal ne ah kii kat tuyaabaam yi jeex na te man mataluma génn xéewal rek mu ne nag su yàlla bëggee yëram jaam bi nag xéewal yi da ko koy may ne ko may naa la xéewal yi jéggal naa la ñaawteef yi yokkal naa la tuyaaba yi yàlla ku muy yërëm noonu la def xéewal yi jaayatuma la ko léegi may naa la du ko fayu ñaawteef yi itam ko yu baax yi nga defoon bu doon benn bu nekk def naa ko fukk moom la ne summa la tusalunna yawma isin ani naim xéewal bu la yàlla defal nag yowmal xiyam dana la ko laaj dana la ko laaj ba noppi nag doog la koo may dana la ko laaj xéewal sàngam xéewal sàngam xéewal sàngam loo ci defoon ndax jariñoo woon nga ko ni nga ko waroon a jariñoo li ñuy tuddee audit léegi bu ñu la jox buñ la joxee budget dañ lay dañ lay audité ba xam liñ la joxoon foo noo ko consommé foo ko dépensé yàlla itam ku ne budget la la jox wér-gi-yaram la jàmm budget la alal bitt la xam-xam bitt la yooyu yëpp borom bi tabaraka wa taala dana la ko laaj summa la tusalunna da ko feddal de laamu tawkiit ak noonu tawkiit summa la tusalunna yawma isin ani naim mbooleem xéewal bu leen yàlla jox yowmal xiyaam dana leen ko kon nag nañuy yëg xéewal suñu borom tabaraka wa taala tey rafetal nuñ koy sante moo tax sant doon jaamu yàlla gi gën a rëy ndax xéewal moom aboloo ko mën a fay lu may sant rek mooy xam ne yàlla moo la ko jox moo tax iblis mi bëgg a yàqal nit ñi moom daane liggéeyam bépp mi ngi ko jëmee ci fexe ba li ëpp ci nit ñi duñ sant wala tajidu aksarahum shakirin danaa fexe ba li ëpp duñ la sant te suñ borom nee na iblis wax na dëgg wala xad saddaqa alayhim iblisu zannahu wattabauhu illa fariqan min almuminin nee na iblis loolu mu jortoon ba mu koy wax da koo yaakaaroon rek xamul woon dana ko dem déet waaye nee na saddaqa saddaqa iblisu zannahu njortam la wax na dëgg wa xalilun min ibadi yastakur xam dana woon wala tajidu aksarahum shakirin aksarahum la waxoon borom bi ne xalil min ibadiya sakoor kon kay aksar bi santuñu li iblis ne woon aksarahum duñ la sant iblis réussir na loolu kon nag yàlla na yàlla boole ca xalil jooje wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain